te mooy euh, sœuru Anti loolu nga sànni rek en tant que sœur. wax dëgg yàlla aw ma ci lenn lu ma ci sànni parce que li ma waroon wax dëkkandoo yi ñëpp wax nañ ko. tey jii nii du yaay du papa dañ fay dëkkoon ñun ak suñu yaay. ak suñu papa ba ñuy gone ba tey ñu juddoo ci koñ bi yaroo ci koñ bi màggee fi mais tey jooyuñu yaay jooyu ñu jooyuñu jooyu ñu dara Siteu dugg ci biir kër gi depuis ba mu nekkee xale ba tey di ànd ak Anti mais mu Siteu musul ñëw ne lu metti lii laa am. ba mbañ nañ ko bu ñuy ñëw ci kër gi sax maam day boo ne ana Siteu mu ne kan la mbaa jàmm la ba mu xam kan mooy seet Siteu ba benn jour damaa toog ne sam papa maam de wax dëgg yàlla nu muy surveiller Siteu man mii de mënu ma ko mënu ko ndax nu muy Siteu bu Siteu bu anti fa la jógee sita bu anti li anti doon mbër mu doon ànd ak anti te moom footballeur la woon ci football lañ ko dugaloon ba bu muy nekk mbër man neexu moom parce que anti doon mbër lu ma bett la mais comme loolu la bëgg ñu gis anti nu mu ciy demee ak moom wax dëgg yàlla ñu nekk benn seen groupe bi moom dama leen di sant ñoom ñëpp ndax tuxuñu mandiwuñu lijjantiwuñu yëfu jàmbur bu ma wàccee liggéey fii laay romb des fois damay ñëw su may ñëw duma ko sax tàggoo damay ñëw fekk leen ñu toog fi ma daal di nuyoo ah, dem mi ñu bëri dañuy mel naan rakku Siteu nga te toppul sax ci man xale bu ndaw la yaa ma doon ma doon taaw mu jox ma tamit cër lool yaa ngi dégg mel na dama koy sante suñu maam ak taa asu fay wax dëgg yàlla lu jiig ñaar ak ñoom ñooy njaag amuñu seen fay waaw fay biram penda waagaan dugg dugg waagaan xaadis waagaan yal na leen yàlla fay ndax yaa ngi faral di seetaan ay combat am en direct ko sànq wax dëgg yàlla ba may seetaan émotion bi ba arbitre bi ne pip laa joxe téléphone bi wane ginnaaw dem victoire am na waaw ba may yégee victoire moom damaa ralentir affaire yi seetaan naat ko si xel mu dal ma dem julliwaat ñaanal ci sama yaay ak sama papa ndax saa yu si amee combat ne leen seen doom a ngi wuti ndam mm-hmm. ci sa ci seen barke ñaan yi ngeen ñu doon ñaanal yàlla nañu wàllu tey kon sama yaay lu mu ñu doon ñaanal ak sama papa dafa mel ni que tey la ñaan yaa ngi nangu si waa alhamdulilah macha allah di leen sant ñëpp. surtout bu doon dara ñun la woon moom ante chaque dimanche fi la ñuy añsee barke Serigne Touba xoolal suñu maam yi nii xoolal kii mooy suñu kii mooy suñu maam ñoom mooy suñu maam chaque chaque dimanche barke laa dëkk chaque dimanche fi laa ñëw di añee. su ma neexee dugg na ci Siteu su ma neexee dugg na Anta barke alxuraan. yaa baax Siteu dañu ko ko borom de. Siteu dañu ko ji ndax dañuy togg ginaar fii maam yaatal ñu kër gi ñëpp amul benn booy boo xam fii da nga naan sa ceeb waalo maa ngi ñëw léegi barke alxuraan kii maam suñu lépp la yàlla na fekkee lépp barke alxuraan billaahi wala taala di ñaan nag doom nday mi ngi fële mais xelam fii yàlla ko yàlla may lu mu tegalee ak yaayam barke Sëriñ Tuubaa sama doom sama xarit billaahi nga ne soo na waaw waaw uh-huh. ko fa amoon dañoo dem rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp Ada Fass staffu Ada Fass comme ni ma koy waxee duñu tay di leen sant di leen gërëm gis nañ taxawaay bi ñoom Aziz ñoom Abakara kontaan nañ ba fu kontaan ñun ay xale lañ en tant que président staff ñun ay xale kese lañ xamuñu làmb ñu teg ñu ci yoon di gërëm aada jàpp na ci làmb ji ak nu mu ci mën di jàppe barki borom Tuuba caatu Medina Ibu Afia ndakaaru gépp ñi ngi sant ndakaaru gépp bàyyiwuñ kenn kontaan nañ bu baax di wax na nag gars yi oh, lii rek dañuy lancement la quoi après la gars yi di comprendre wuy ma kaay coach kaay set buur gaaw gaaw gaaw léegi léegi wala eh génneel nii dafa urgent coach kaay ñu waxtaan moom moom moom sama grand la avant tout moo ma yoroon salle de musculation mais coach Bamba ah. félicitation ma félicitation ma alhamdulilah rabil alamin jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëfati Serigne Saliou waaw santaat yàlla bu baax di gërëm Fass yëpp Medina Colobane Gueule Tapée ñaari tali Grand Dakar ñëpp tay ndakaaru bi ñep ñing leen di gërëm ñep ñew japp ci waaw mbolo moy doole billahi wala talay waaw ni rek la mënon démé uh-huh. barki Serigne Touba di ñaan yalla suñu borom li ni gëna sax waaw ñun ñep ñu bo and di xatiando di dóorandoo ndakaaru ben bop la kenn mënu ko xari ñaar waaw nañu andando doon ben rek inshallah allah day baax barki Serigne Touba lamb ji dañ ko dañ ci analyse touti mhm. waaji mo jëk door cest un homme ak moom ak parce que da ko aussi ko faire ci xeex sa fekk si solution mu dem ak c'est tamit fekk ko si yow loolu fait nan ngeen ko non Ama bu Yara dafa umpale fait. C'est loolu problème parce que lamb ji ñoom ñëpp dañoo que ni Siteu mënul parce que dafa privilégié le moo tax tey mu wan ko carrément damay bëre damay xeex mu xeex ak moom ba pare doog a bëre parce que avant bu avant bu yaraax nii rek la mënoon demee parce que dafa dafa ñàkk a teggin dafa ñàkk a taalibe foo ñu won ko yoon bi tuuti noonu loo demee nag waaw duñ nag jàmbaarte du leen booy bi mi ngi liggéey xale bu ndaw la waaw ndimbal suñu borom lekk la waaw di ko encouragé nag beneen combat bu ko amee budul waa Ndakaaru yàlla suturaal ko may ko ndam. Mm. mais damay ñëwaat ba léegi ci làmb ji de. waaw parce que sa waay gis nañu te la rek loolu forom la. làmb la rek ñu mën a forom la moom eh. ama ama tey. forom la. ku juddoo Fass yaroo Fass màggee Fass boo mënul bëre ñu laaj la ko waaw ñun Fass lañ dëkk. wal yaa ngi suude ay titre foncier lañ yor Fass waaw Fass lañ dëkk Fass Ndakaaru. Fass mooy Médina Fass mooy Gueule Tapée mooy Colobane Fass mooy Niattari mooy Grand Dakar kon nag bu mënul bëre ñu wax ko bu ragalee ñu rendi ko. ci kanam lan la moo nekk ci kanamam. waaw di ñaan yàlla suñu borom gën ñoo doole sutura rek. waaw lépp ci loxo borom bi la ñun ay jaam yu xeebu lañ. waaw dañuy dañuy dañuy dem nii rek suñu borom mooy mottali lépp dañuy ñaan suñu borom gën ñoo ta kattanal dooleel ñu. incha allah waaw di santaat ñëpp rek. waaw di santaat ñëpp di gërëm Arafas bu baax a baax gis nañ taxawaay bi rafet na. waa Ikiri Kolobaan mbooloo barki Serigne Touba Sourou Fall gars yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm wala jàpp nañ ci xam nga Ibu Afia Cheikh Bouye félicitation à lui xam nga gars yëpp kullim nit matul ku ñu limul rek ñu xam ne carrément ñu ñu ñu ñu xam ne dañoo fat la mais ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp barki alxuraan delloo ziar si rek lañuy toog si ramu gore si dara rek lañ tax ñu leen. Pikine Pikine Pikine lañ jógee Pikine Pikine lañ la ñuy topp bilaay duñ topp keneen Sida rek yaram teginam dalam teeyam ak mën bërëm am fit bilaay Sida rek. wax mais combat bi neex na nokku na ko duma daan na ko mu waxal soo ko presse bi ak la am bokkul abaa da dem defaruñu waat xale bi xale la day namp ñu nuñu moromam xale yu Fass macha allah mobilisation spéciale Fass lii la ñu xam macha allah lii xam xale yëpp ñu leen gërëm di leen sant waaye lépp anti ñu ngi gërëm anti di gërëm yaayam di gërëm maamam li am si si te ko def ñu ngi gërëm di ko sant vive Fass Fass waas ñu koy faas la ne. non amalu mu wax seen bi pour rien la pour rien pour rien. non dama ko ko dóor mu dee. bilaay fii daa am malaagal Moodu. day jël ruu jaamu rek. Sida Kase fii benn mbër la am Sida barke alxuraanu karim. boo bi na ko ñëpp jël ñun ñoom ñëpp la ñuy boole Sida Kase. Sida Kase. Mbay ñëw Liss Ndiago na ñëw Liss Ndiago na ñëw Liss na ñëw Liss yàlla lekk noonu la mu mënee demee kon fàtte naa sa waxoon naa la ko bon man ma mën a xam lu xew xam naa ne man xam naa ba may dem trois points day ñëwaat rek mënul ñàkk ne Liss Ndiago na ñëw moromam a ngi nii waaw noonu la ba demee na Liss ñëw Liss na ñëw moromam a ngi nii ah waaw mbégte rek comme ndab ndab bettuñu quoi bettuñu si booy bi jàmbaar la waaw Siteu non nu mu mel fu mu teg tànkam bi noo kon ne bu mu teggee rek ndaw la respecté na ñëpp loolu kese la a nga àdduna moom kenn moomul kenn boo joxee ñëpp jot ñëpp daw sa ginnaaw loolu kese fi am fu mu teg tànkam daal bu mu ko teggi quoi ah fu morom mi nekk fu morom mi nekk xamoo fa <laughs> yow xamoo fu morom mi nekk ah lis na ñëw déggoo ma de si cercle bi mu nekk ñëpp xam nañ ko mu ngi cercle ñoom Liss Ndiago foofu génnu fa ki mu daan amul défaite huit combats huit victoire la am Ama bu Yaraax mu ngi soog a mu ñël sita moo ko déggloo naka gars yi jël ñu bëre lan la ñuy daw bii bu os bi la de bu dof bi kala naxa katt ndeyam ñoo ko fa am day mbolli rek du taxaw aba ah, te tee nga naan wagi te ba leesi naan wagi an nee te tee nga tooy yeeki naan mais mam Yeah yeah anh, Jij een an, jij een nan, waar maar an. Nee, nog nan. Man supporter laa rek comme ñëpp. Non, man supporter laa comme ñëpp. Man duma considéré supporter laa comme ñëpp. waaw mais ñu ngi koy savourer rek waaw wow, ñëpp waaw ndax ndamu Fass la quoi te si da doomu Fass la du du du du mbër amaana ko pour ñun quoi suñu frère la dañoo fi màggandoo ñun ñëpp mu nit ko am anh yaa ngi comprendre ku am kersa doo dox ñëpp suñu xol dafa sedd parce que xamoon nañ yàlla da koy fayee quoi ah, li mu mën rek la def nda si du mbër bu ñuy conseillé moom bu taxee xel boppam lay lay lay bëree moom moom boo xooy conseillé yaa ngi nax sa bopp bi ñuy taxaw entraînement dafa ni carrément kii bu arbitre damay dal si kawam te noonu la def waaw ñun li ci moom am ko waaw na ko daan nag na jëm suuf ñun ñëpp suñu xol sedd ndax doomu faas lañ quoi ah, ci kaw ndaye instant yi kenn du bañ ku musul daanu nga laaloo loko suuf ci biir arène nationale mo lo te combat wu jank la beure quoi te loolu la yag di beure wa na ko may sans sigo mu beure na ci doon ñi ñe mon ëpp doole duñ tudd turu mbër ay tudd turu mbër liis ñoo ko gën a leen liis si dem moo ko gën a dëgër bopp yoon bàyyi leen loolu ah combat bi moom rek allah ndaxte vie moom xale bu baax la xale bu yaru la faatu moom di magam di sama rakk ju baax macha allah di leen ñaanal rek yal na ndam bi moom yal na jëm kanam rek macha allah. <laughs> combat bi moom macha allah neex rek di di ko ñaanal rek yàlla yal na ko yàlla di may ndam chaque jour rek mu ànd ak wér ak le di ko ñaanal chaque jour tamit itam mu jàpp magam bi faatu. Fatou moom ku baax la moom macha allah wax dëgg yàlla bu ñu nekkee xale ba léegi sama rakk la doon àndal te ba léegi dafa jàpp te bàyyiwul di ko ñaanal rek yàlla na jëm kanam macha allah.